abi sifle na mu ngi wax ak ñoom ni lamb nangu ak lamb bañ ndeysaan saan Becaye ak Ama Becaye door na Becaye Ama lali na ko Becaye daa dur Ama lali ko Becaye daa dur Ama dem lali ko Ama am na ngemb nee nañ ren kum daje waaye daa mel dañoo neexoo dañoo neexoo Ama daan na ko Ama daan na ko doole Ama daan na ko doole doole doole Ama daan na Becaye doole ay waay Becaye doole doole ba dina defati bantamba déedéet daan na ko koy dem ko oh. waaye Ama kenn du moom. te tey numéro deux la ñu daan. waaw Ama daan na ko. ndeysaan. ndeysaan Ama ngi noonu. Ama ngi noonu. ndeysaan dem na Soobet. dem na Soobet dem supporter yi. Soobet dem na supporter yi. gone Kër Mbaye Fall la. waaw ñu ngay sibile. gone Kër Mbaye Fall la. Kër Mbaye Fall gi. woo. Oh. Mbaye Thioune. xale baa ngi noonu. Oh. parce que xoolee gis nga ko. ay zo technique. kon daan naa yooyu. xale baa ngi noonu ndeysaan xale baa ngi noonu. mu ngi daw ci saam ci saam la jëm ci saam la jëm ci saam la jëm oh. mbokk nday koy jur mbokk nday jur mbokk nday koy na ci saam dem na saam ndeysaan bëgg luy ndeysaan dem na ci saam waaw waaw saam oh, rafet na rafet na rafet na ala baa